te ku siipi li leen suñ kanam dafa bëri am na loo xam ne lii président nasal nañu ko di ñu ko jox muy euh, affaire yi may jockey yi ak propriétaires yeeg éleveurs yi muy ay parcelles yu bëri yoo xam ne mi ci yoon di ñëw war waruñ ko yàq hippodrome national bi aussi léegi président defar ko mi ngi ci yoon nañ bokk ndey bokk bàyyi rek yëpp dina baax. ñu xool indi nga box yi ba place box yi fu mu toll. <clears throat> box yi ñëw na bu yàgg deriwaane naa ko sax ba pare. dafa nek ni euh, weekend bi mënu ma ko woon indi parce que dafa amone magasinage bu ma fay pour après enlever leen may may comme nak dafa am ay khat khat parce que altiné dañu dem réunion direction de l'élevage pour le problème du PMI parce que c'est les ministres nous ont convoqué, on est obligé d'y aller donc dina khat mais talaata bi c'est la réunion CNG bu jogé ci sa réunion CNG bi nak alarba bu ma xëyee def tout bu bokk Thiès merci bien merci beaucoup. boogi barbaruk danoon la bu a mu a amar faa dem baa